alay maas waaye waaye mais de comme que waxa yéen seen waa oh my god ah ça c'est mon ami Ben ay ça sang baa ngi noonu ay ñi siar ba ñi siar ba longtemps Ah, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Alors, c'est l'homme. Sol naa bu l'homme du couloir. ok l'homme du couloir a ngi nii. je lii moo koy il c'est